yàlla doy na ba nga gëmee bàyyi laay dama sant yàlla doy na ba la ca des nag mooy nga ba roy ko ca la mu ne roy ko ca la mu doon doxale digganteem ak boroomam moom si ko yéegal ba ca kaw parce ñële njalaw yi ak njaal yi njalaw yi boole garab yi gëm na noo li ca ci ngay garante naa du wóolu ni kandanaa allo waxu leen ko waaye ñoom du koy wax ku ko xëy ci ñoom te waxoo ko doo doo yéen loolu ku ko xëy waxoo ko imam doo yéen parce que yàlla yàlla yàlla yàlla fonk na doomu aadama laa ñëw ku la wax ku ne yëkkati sa ña sa ñaari loxo yàlla sa loxo daal ci loxo Serigne Ablaye sa loxo ku mu daal ci sa loxo loxo bàyyi laay dal sa di ko ñaanal sunu bàyyi duudu moxtaar bu Seydina Mandione yàlla na fi gën a yàgg te gën a wér yàlla defal ka nooteel ci njaboot gi yàlla defal ka réussite bu rëy ci xilaafaam yomb na yàlla yàlla ko yàlla defal di ñaanal njabootam gi yëpp nag mu yaxlu bayti bi di ko si jiital sunu baay mu sell mu tedd sunu baay Basiir yàlla yàggal ka fekk njaboot gi yépp te yàlla taxawu leen ci biir ak ci bitti mu mel ni itam di ñaanal sunu waajur yi nga xamante ni ñu ngi waajal bis rëy bii ñu dëkkmal di appel bi te ñu war ci am ay taxawaay muy sunu baay Mouhamadul Amin yàlla ko yàlla oyofalal yéen bi te jàppale ko ñaanal sunu baay maam Libaas moom it yàlla ko yàlla oyofal yéen bi te jàppale ko di ñaanal itam borom yor-yor ba sunu baay imaam Mouhamadul Mokhtar yàlla ko yàlla jàppale te oyofalal ko yéen bi. moom mu ngi leen di jotal ak nuyoo ak ziyaaram ci njaboot bi nga xamante ni njabootu boppam la nu di almufarridoon or na jaam yàlla bii dañu julli jumaa ba pare mu ooma téléphone te sax man tàmmuma kilifa yi ñuy wax man ci téléphone waaye mu ni dafa dafa xat te xam na ni suma kaw suma oowee dinaa bàyyi lépp ñëw wuy si te nit ñaan may xaar moo tax ni ma maa maa préféré oola di la siyaar di la yóbbante nuyoo ca mbooloo ma di feddali sama cofeel ci njaboot gi nga xamante ni mooy almufarridoon ñaan yu rëy la nga xamante ni macha allah seen taxawaay dafa rafet kon imaam ñu ngi kay ñaanal yàlla ka yàlla gën a taxaw te jàppale ko ndeysaan yéen xam ngeen ne mu mel ak ñun bis bi sax mos nañu see bett ñëw ci mbooloo mi teral na fi te njaboot gi nag ji ñi njabootu boppam lañu loolu mu def rëy na la ca gën a neex dafa ni ma dama jóge ci voyage daan naa yebal sax ñu ma fa waaye yow doy nga du ma yebal kenn jaam yàlla mi seede na kon loolu cër la ngi ñaanal sunu ay way jur yàlla na leen yàlla sàmmal damay faral di wax ni nag Seydina ku fonkul sa kilifa rek gis ku fonk kilifa kon nag foog sa kilifa dafa am solo te day farata nag waaye di ñaanal sunu mag sunu taaw muy jur muy Seydina Laay ñi nga xamante ni macha allah yàlla dafa dogal mooy coordinateur appel bi camak camak nga ba tey ci yàlla defal ndam defal ko ci di leen jotal nuyoo seen soppe bi muy généralu diine ji généralu Serigne Ablaye bàyyi ngi coow mu tedd mu baax bi moom it ba may jug rek la ma la ma oo téléphone dinuñu anal ba yére bii ma sol sax ndeysaan moo ma ko jox ne ma sol ko kon nag loolu Samba Camara loolu ku ko am ci say mag war ngaa góorgóorlu ko am ci baay war ngaa góor lenn rek a nu war ñun mooy góorgóorlu confiance bi waajur yi am ci sunu jëmm ju xeebu ji ak yéene bi sunuy mag am ci sunu jëmm ju xeebu ji su dee am nanu xel ñun dama war a góorgóorlu rek tegu ci yoon seen xarit sama xarit sama wéttal muy Serigne Cheikh Mbacke laay bu baax bi moom it de ba ba tey mu may soññ démb wootee nit moom mu ngi may soññ ba ni ñu nekk daayee ba ñu nekk ci oto bi yëpp mu ngi may soññ rek loolu am mbaax rek la te du ma fàtte Ablaye Fall bis bii bis bii mu bett ma jugee Cambérène monsieur le maire moom seen Cheikh sa soppi ñëw fekke nu ca mbooloo wàcc otoom ñëw ci tànt bi ba tey toogul dafa ñëw rek nuyu ma fóon ma ne dama bëggoon ñëw rek fekk la ci mbooloo mi ñaanal la maa ngi dem loolu lu rëy loolu man ma kaa fàtte sama àddina kon Serigne Cheikh moom it yàlla ko yàlla gën a taxaw rek te gën ka jàppale yaakaar naa ne bu yàgg sax dina ñëw fii le 29 dina ñëw fii moom it ñu ànd ko téyal ko ay kàddu boobu mu war a ñëw waxtaan ak jaam yàlla yi pour waajal bisu Seydina Limaamu yàlla na si yàlla yóbbu yàlla si defal ci ndam di ndokkeel sunu laaka sunu mar bu bopp muy Ibou Seyni di ko ndokkeel ci bisam bii mu jóge barki démb ci Sorano muy nar loo xamante ni laalaay kenn mënatu ko fàtt yàlla yàlla fay leen te moom it yàlla na ko yàlla taxawal te dëgëral nuyu kilifa yu fi nekk yëpp imaam ngañ dem ak mu jot mu ñëw wéttali nu ànd ak taawu Baye Madul Baye mi ngeen xam di turandoo suñu wayjur Yablaay Caw Baye ak kilifa yi ñu àndal ak imaam yi nga xamante ñoo ne ci jàkk ji ci Medina ci guy Mariama ak kilifa yi ñoom Baye Si ak Galor ñoom Ngor Saar ak ñoom Baye Sey dégg ñëpp ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax imaam Pape di leen wàcc seen wàccuwaay waaye di. dalal sunu xarit sunu soppe maire Bamba Fall nga xamante ni moom dafa bokk ci kër gi dafa bokk ci kër gi nag wax dëgg yàlla ndax at mu jot mu def fii loo xamante ni tudde que marché bi Mahdi ànd ak kaat Serigne Cheikh waaye daan si ànd ak sunu mag ñu tedd de Serigne Mor yàlla yàlla yësal yër ba dee kon nag Bamba lu njëkk ngay ñëw xale yi wax nanu taxawaay bu rëy bi nga am ci bis bii ak yéene bi ngi ci am yàlla la yàlla fay te taxawal te jàppale la nga ànd ak ku baax sëy na muy Samba Camara nit ku tedd ku ku ku xam boppam ku foyewul boppam ndax nag dama yàgg ak sama mag Serigne Cheikh fu muy dem jàpp sama loxo ñuy am ay bërëb yu ñuy daje ci ku baax ka mas mbeng yàlla yàlla yësal yërmandeem waaye Samba daal da ngay da ne ku am personnalité la da ngay sentir ne ku fayawul boppam la te loolu dafa baax fi jamono toll nit bul fooy sa bopp ndax soo sàgganee ba fooy sa bopp ku la warul yàpp la yàpp kon loolu dafa am solo ngi lay nuyu bu baax ci kóllëre gi nga kóllëre teg sunu kilifa Serigne Cheikh Mbacke laay bu baax bi yàlla yàlla fay leen ci libaas fekk rek ak ñu mu àndal bi ay rakam ñëpp ñu ngi leen di nuyu sang yu tedd yii di njabootu Seydina Limaamu di sunu njaboot fu nu nekk ñu nekk fa yàlla yàlla fayadu leen ak ñi fi nekk yëpp mu fari doon ak sunuy soxna. muy soxna ñun waa Mufarridoon ñu ngi leen di ndokkeel ci bis bi di leen ziar di leen ñaanal yàlla yàlla barkeel leen te barkeel seeni njaboot te gën leen jubalaale ak seeni borom kër waaw ndax ñoom ñoom ñëpp ay première dame lañu waaw ñoom ñëpp ay première dame lañu ñoom ñëpp yàlla yàlla barkeel te dëgëral seeni ànd ak seen i borom kër te barkeel seen i njaboot soo amee soxna yu baax dana leen di ñaanal te di leen sant di leen gërëm imaam soxna soo xamante ni loo nekk mu nekk ci rek loolu dafa am solo kon nag mu fari doon yàlla yàlla gën a dëgëral bi yéene ak ñaan gi imaam am yàlla na yàlla wàcc ci yéen ak seen njaboot bi yëpp nuyu sunu ay marraines ñoom ay seen bi sunu maru bopp ndax lu bàyyi Maodo laay sekk jur Ablaye Thiaw ko jur kon ñooñu sunuy mag lañu kon ay seen nag dafa yàgg ànd ak ñun Pape Sarr ci daayira bi di jàppale xale yi muy ku baax yàlla yàlla taxaw ko ak sama xaritu bopp. ajaratu daal nga xamante ni moom diine ji rek ka ñor nekk Baay Faal kon nag ñooñu ñëpp yàlla nu yàlla dimbali ci ñoom te taxawu leen di ñaanal ñu nit waa Cambérène yi nga xamante ni ah muy soxna yi ak waa Wildan ak ak maire Akhroulaye Ablaye Fall kenn desul yàlla yàlla fayal leen te dama doon nëbbatu sax. ne naa ànd ak samay daayira rek waaye ku gën yëpp ne du nu du nu bàyyi sëñ bi loolu cër la yàlla yàlla fayal na yaakaar naa ne maa ngi ànd ak dina it ah, ah, ah Ablaye Thiaw Mbaye moom mel ni ah moom ki may seen fële ah waaw kay kon day na waa ah waaw kay yàlla yàlla barkeel <coughs> waaw kay may mun a Thiaw mi nga xamante ni doomu Serigne Ablaye ànd ak rakkam xujjalaay ànd ak jarbaatam ànd ak doomam Ami Diagne ay seen caw wax dëgg yàlla sanga ñu ngi leen di ziar ci seen taxawaay mu mel ni mu fari doon ñoo oote ñan ñooy mu fari doon laaj leen ko yonente bi ne ñan ñooy mu fari doon mu ni mooy ñi nga xamante ni nii nu mel ci baatu laa ilaha illallah kenn mel moo tax xadis ba yonente bi ne sama xar mu fari doon mu fari gaaya ñu nga ca teram kenn du leen séedati di dal lan moo tax mu am boobu leen martaba ci seen diggante ak seen borom mooy ni nu téye laa ilaha illallah kenn téyewu soo leen tekkee ñoom mu fari doon ñuy wax baat bi danga naan xanaa dañu dof ndax ñi ñuy dunde baat bi ak ñi koy yëge moo tax boo jëlee tamit sabaxal mu fari xaaroo yaa rasulullah wa man mu fari doon yéen jiitu nanu gaa ne nabi ñett ñooy mu fari mu ni mooy ña nga xamante ni soo leen gisee imam ñuy tudd laa ilaaha illallah li ngay jëkk a yëg mooy gis que ñuy wér nañu ndax day mel ni dañoo tàggali ko seen sago ndax fonk ki nu fonk baat te yaakaar naa ni ki ngeen yaakaar di Seydina Limaamu wax naa la ko de danaa wax baat bi guddeeg bëccëg ba lépp lu am ci baat bi la kaare bàyyi laay monsieur le maire commune Randal gi baat bi rek la téye bàyyi laay géej ji mu Randal muy kéemaan bu kenn la weddi ba muy dem yorul benn turu yàlla bu dul laa ilaha illallah géej ci bàyyi bàyyi laay ci laa ilaha illallah la waxee géej géej def la mu bëgg kon mu fari doon su ngeen wootee woote war na mën a nekk ci waxtu wi mu nekkee kon nag loolu ñu ñëpp ci yéen ba sëriñ bi jël tur bi tudde leen ko yàlla ngeen niroo ak tur bi te yëg naa ni yéen a ngi koy dundee te yéen a nag ndax yàggul dara may ngeen ma tur baabaraan ci sama kër Cambérène dama mujjee yéemu nari si kër. yéene ba caam taxaw ba caam nga yëg ni ñuy yëgul ku dul yàlla dañuy taxaw 9 heures ba ba 23 heures gisu nga yàlla te du doon takkaay rale mu nekk lu naturel soo leen di xool da ngay am yëg kon kenn du Imam Mokhtar moom mi tànn tur bi jox leen ko li mu ci nag. mooy ñu jéem a fexe xam lan mooy mu fari dun dunde ko ñu ngi ci yàlla leen yàlla taxaw say di seen taxawaay ñoom ñoo woote far la ñu wootee Dakar lan mooy Dakar nanu jël aaya boobu imaam jaxafas inna allazi farada alayka alquran la raaduka ila maadi yàlla ni ci alxuraan di wax ak yonente bi ne inna lazi naka ki nga xamante ni laay waxtaan farada alayka alquran yow rasulullah moo wàcc ci yow alquran la raadoote dinaa la delloo ila maay di ci beneen landi doxal loolu la sayyidina la alquran wax jëme ki ci sayyidina muhammad du sunuy fentunuka ku dem ci xasas di ko fekk aaya bi inna lazi farada alayka alqur'ana la raaduka ila maadi yow rasulillah te boobu woote na bay bay waaj a pare wala buy ci boromam mu gestu ci biir nekk sa borom nee na inna lazi farada alayka alqur'ana لردوك إلى معاد yàlla mi wàcc ci yow alquran parce que alquran jigéewul ci kenn su ko dul yàlla moo tax laa yamassuhu illa al-mutahharun ndax yàlla di ko wàcce moo tax ëpp na ëpp na ci julli ngay laal alquran de laa ko lu tax téere mu mën a waaye mooy sëriñ ku laal alxuraan te àndoog am nga bàkkaar soo demee ci ndax dari so imam am a waxtu yoo xamal sax mayuñu la nga ciy dari aar booba boo àndul ak laal am na si wax moo tax dañu war a xool sunu diine kañ nga war a jàng alxuraan te amoo laal xam nga ñaar yu bokkul la yow amoo jàpp doo ko laal doo ko laal dañ ci bàyyi xel même xale bu ndaw dina yónni bàyyi as la kaamil bi fi saal bi nee na am na bàkkaar bi day taxaw waaye mooy yenu bàkkaar bi téere ba ni wal ismu alaamu ndaw yi ka ko yónni koo ko yenu bàkkaar imaam la laa bëgg a ci alquran du dara lu dul waxu yàlla la du waxu nit du waxu malaaka waxu jinne waxu yàlla la bokkul na bay góor nga nekk ci jaraba am na waxtu woo li waa am na waxtu woo xamante ne sax mayu la nga ko cay wax lu dul illaa war na ko zaalik kon nit war xam diineem dëkk si jàkk bi te xamoo xew fexe xam li xew dafay gën kon alxuraan du sell ji nga xamante ni pour ngeen xam ni kenn du Seydina Limaamu kenn mënu ko falsifié dégg ni rek mën na wuute. waaye ku nekk da nga respecté sa morom ci déggin ba mu am ndax góor bu baax nga sunu xarit ba bàyyi woon Serigne Ablaye daara wax ni bu kenn nga di kenn ci alxuraan ndax bi junni yoon ku nekk dina mën a doy kon maa ngi layal inna farada alayka alqur'ana la radduka ila maadi ci wàcc ci yow alquran fii ci Mbàkke Médina ba nga matal war a dem na nga yëggu dina la yóbbuwaat ci beneen rendez-vous yéen ñëpp am ngeen ni la raaduuka araf yamuy binde Dakar mu nga ci biir baat boobu la raaduuka soo bindee soo bëggee bind Dakar ci araf araf yan koy bind mu ngi ci biir kalima boobu la raaduuka Ka Del Kaaf Alif Raa la Raa dog araf yooyu ñoo may ba doon yii bind Dakar moo ko tax kon lii yéeme la nanu si bàyyi xel la Raa dog ka ak war di nun yow gis baat dëgg ak jabalu ngor muy tundu ngor wa muy xuntu ngor ma soo leen xisaabee boole lañ cay boole da lay jox deux cent cinquante cinq baatu la daa doog rek soo ko xisaabee ci yoon bi ma ko xisaabee da lay jox deux cent cinquante cinq baatu xuntu ngor bi xuntu ngor soo ko xisaabee moom it muy jabaru bor da lay dox deux cent cinquante cinq xool coïncidence bi waaw ñun ñooy wax hasard mais hasard amul fa yàlla kay ñoo ñu comprendre li xew waaye am na lu kon na nga jël la raajuuka dinaa la delloo la lay jot ay tëj jabaru soo ko xisaabee nee naa dalay jox deux cent cinquante cinq jamono bor dalay jox deux cent cinquante cinq loolu war na bàyyi xel beneen baat bi ci aaya bi imaam ilaa maadin ilaa maadin mooy li muy teg mooy beneen beneen wàccuwaay beneen rendez-vous ci Zarko dafay dox cent quarante sept cent quarante sept nga jël wër kaf wër kaf mooy neexul tamit loolu lay fekk mooy soo ko isaabee dafay dox cent quarante sept Ablaye Ba fi lay fekk lu bari lay da nga amul da nga am problème ci mën a mënoo comprendre li mu wax ñebe rek. ndax ci côté mu ne man nañ ko layal ci ay suif maa ngi ci suif man nañ ko layal ci ay ci ay suif ni mu méngoo ak wàccuwaayam baatu farada alayka ak Seydina Muhammad ñoo nit soo ko xisaabee ñoo bokk xisaab farada malayka dalee jox cinq cent sept Muhammad dalee jox cinq cent kon ci ci aaya bi farada alayka bul ne Isa bul ne Moussa Seydina Muhammad day junj kooku Seydina Muhammad day junj kooku keneen doy na waar soo demee ci jeexitu aaya ba man jaa bil huda mu nga sax man jaa ki nga xamante ni jaa def lu indil al huda njub boppam it nekk imaamul na soo ko xisaabee moom it da ngay jox cent trente huit sëy naa nga nga jël baat bi ne bàyyi laay wax bi bàyyi laay wax bi laa ñu ngi may jëlee man jaa abil huda imam ngay jël bàyyi laay baax jiw ñoom it da jox cent trente huit ñoom yaa nekk da lay jox cent trente huit cent trente huit kon waa mu fari ñu na ñoo oote fan la nga kaaru gi fii la bàyyi laay oote

man du ma ragal ci yonent ak Seydina Limaamu waaye jërëjëf Limaamu sant yàlla ci bàyyi laay waaye jërëjëf